li am solo mooy xam ko ak jëfe ko jaamu yàlla goo dugg ku ne la ko tàmbalee ci pas-pas nga xam lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fasoon ak lum santaane woon ñu fas ko su boobaa nga fas ko euh, nga xam ko fas ko julli jii lan la ci santaane woon ak nan la ko doon defe nga xam lam doon santaane fexe ba xam nam ko doon defe nga jëfe ko koor gii lan la ci santaane woon ak nan la ko doon defe asaka ji ak gi màkka eh, naafila yi eh, suy dugg jàkka suy génn ci jàkka suy dugg ci këram suy génn ci këram suy dugg ci wanagam suy génn ci wanagam suy jaay ak a jënd nan la jàngale woon nga xam ko te di ko jëfe jëflenteeg ay dëkkandoo jëflenteeg ay waajur jëflenteeg ak njaboot lenn lu ci nekk lu mu ci jàngale jëflenteeg mboolem doomu aadama yi jikko yu rafet ya nga xam ne moom la bindoo woon alayhi salaatu wasalaam te jàngale ko soññi ñu jëfe ko nga fexe ba xam lan la doon def ak nan la meloon nga jéem a góorgóorlu ca loola ba loo ca man nga def ko lii su nit ko góorgóorloo ba def ko jarutul muy sonn ci xam lii nan laa ko war a tudde ndax dama koy tudde sunna wala dama koy tudde tasawuf wala dama koy tudde tur wu mën a doon ginnaaw daal yow lii nga nekk luñ la ci ne lii foo ko jëlee nga ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kat nii la ko daan defee سيدنا أنا سير من جنگ من كو جن نتك شيء أي لحظة بدأ حديث عن ميني بدأ لا يبال عن ميني سوف يكشف الله لنا كرال مسافر دال ويجرون ده إنسان لك أجسان كوقت كي خلوا نان تروي نحوي ترو تصور لا ولا ترو سنة لا ولا ترو لنا والله تعالى أعلم هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى